jaman ma dege ne Babou Eldam det ka Eric Fat jaman ma dege ne Babou Eldam det ka Eric Fat jaman ma dege ne Babou Eldam det ka Eric Fat jaman waa bu jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi. aj aj waa ambiance bi yaakaar naa ni lii yëpp day wane ni rek. ñi ngi jëm ci combat bu mag ñi ngi jëm ci événement culturel bu mag. gars yi déglu leen. hortiga jayalle mosan kumbaye gana solo naiwina cerere pañayele yay mabugan hortiga jayalle mosan kumbaye gana solo naiwina cerere Najere eh, eh, eh, merci ah lii yëpp mais sant yàlla la waaw macha allah HB Gaye aca jërëjëf mbokk yi nous sommes en direct à la télévision Simba dawal gaaw mooy wane ni. waaw Tafatine bu fi jugaat de. wax naa leen ko ñu ngi jëm ci événement bu mag di événement culturel bu mag. waaw mbokk yi et e, public bi et. macha allah et et e, e, leen. macha allah. jërëjëf. mel na ni lii day wane ni. ngi jëm ci bis bu mag léegi dañoo bëgg waxtaan. waaw. li ñu dese ci temps bareetul. waaw dix minutes moo nu dese. waaw dix minutes. matu ko sax. matul sax dix minutes mais sant yàlla. ambiance bi macha allah. lii may wane ne rek culture la ak sport. waaw. Cheikh Sarr ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi doog a yegg si te ci kër gi la bokk. macha allah CNG ñu leen di gërëm bu baax ci liggéey yu rafet yi ngeen di liggéey. Mhm. parce que yéen tam vraiment ay jàmbaar ngeen. yore làmb yombul. waaw. waaye yéen a ngi ci waslu àq di ci liggéey bu liggéey bu rafet. Mhm. ñu jëm. Mhm. ci weeru février boo xamante ne nii. événement bi bokk na ci événement bi gën a mag ñu boole ko culture sport léegi nag Moustapha laaj bi mooy jëkkoon ngeen a bëre waaw la tas làmb ja ñëpp gis nañ ko te amateurs yi bëgguñu loolu li nu bëgg mooy bëre ndax loola mën naa nekk comme déet Moustapha waaw da ngay déglu nag eh, yow laajuñu la ko may ñu waay Adja Moustapha jërëjëf. waaw Asi Bekkaay maa ngi lay nuyuwaat aussi di nuyu mooy gym bi may entraîné à Dakar. ah, ah. Serena Fitness di nuyu coach su Mohamed ak coach si nekk foofu. madame Kébé di nuyu suma gars yi ma àndat Cheikh Mbacké ñoom soose Ndiatine booy sampion yi ma àndat yëpp. macha allah Lamine Bey ñoom Omar Sall ak équipe Bawol yëpp di nuyu suma frère Ndiakhoum. Ah, ak Ndiol Waalo suma équipe lañ nekk di nuyu aussi Baye Badou coach ak coach yi nekk Bawol yëpp muy ngoom Ngom Ilimane Soukey ñoom Wilaas <laughs> Ndiak Sarr ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu waaw ah. béykaay loolu moom mënul ñàkk di woo aussi di woo mbokki Bawol yëpp Tafa parce que mënul ñàkk waa dëgg la béykaay bés bi dafa ma jaral mënul ñàkk xeex bi waaw d'accord mais ni amateur yi ñu ne bu nu sañoon bëree koy jeexal parce que bëre woon ngeen ba mu jeex te jël amu fa xam nga combat bu ne ak li mu laaj waaw loolu la loolu la man du ma yàkkamti bu yóbboo naa la yóbbu àll siir quarante cinq minutes allemand man damay waaw mooy loolu bu ko laajaatee dama koy biisat parce que moom dégg naa ko mu naan ay combat bii di faggi taabal dinañu xeex ak du ñu xeex surtout di dama la koy répété damay cookiwaat ak yow na leer Bombardier ngi dégg Bombardier yaa ngi dégg non dafa ndànk waaw comprendre nga ah. xam nga day nekk di lamtu naan ay nii wala ne le damay cookiwaat ak yow gartombe laa lay tegal you know gartombe xam nga lan mooy gartombe moom laa lay tegal incha allah voilà mu ngi noonu. ok Mo Modou Mbaye. Uh-huh. Euh, defe naa wax ji farankulaayu na benn côté. Mm. di nuyu ñi mandal yëpp. champion bi doon fecc léegi mooy général Diouf. bëgg naa gars yi ñam ko. ak Obama. Mbaye Sarr eh, eh, jàpp leen ci waay eh, euh, bi si des mooy euh, xel day fattu. parce que bi may nuyoo sànq dafa fekk président Maysa ñaa egseegul bi mu yegsee toog dañ koy jox cëram kon président Maysa ñu ngi lay nuyu baax eh, di nuyu nag sama doom ni mu ko waxee dëgg la Lion Ray waaw sama doom la xale bu tuuti la mu ngi soog a dugg ñu ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal adversaire am aussi was jàmbaar dégg naa li nga wax parce que ñun fi ñu toll si làmb tey mooy joxe un bon exemple. Hmm. parce que tey longévité bu yombul si carrière